Messi akub équipe am éliminé nañ ko ci play off ya nga xam ni loolee ma ngay am ca États-Unis d'Amérique yéen ñi ko xamul ak la mu demee ñeenti weer séngam dana ko toog du football bu fekkente ni ablewuñ ko fenn gars yi topp leen ni ci information yi Aladji Malick TV information yu te wóor la vérité sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi beneen bi mooy sponsor bu mag ba kile di Matar Guène kër yaay maanaam formation bu xarañ maanaam képp koo xam ne amoo métier bëgg nag métier mu dox mën nañ laa jàngal téer jàngal la dagg jàngal la lépp loo xam ni jëm na ci xeetu liggéey boobee nga xam ni boo ci génnee di nga mën a bersa daare bopp di fay ko lu baax a baax tey di ñaw-ñaw yi nga xam ni moo gën a xarañ ci réew mi numéro téléphone yaa ngoogee boo ci wootee maanaam inscription bi dana dem ba fii ba le 15 nga xam ne boobaa man nga def sa inscription dem jàng ci jàng moo xam ne mu mucc ayib bu fekkente ni Thiès nga ne ci la gëne waaye ñun ñi ngi Cees fële eh, ci Medina Fall xibaar yu wér te li nga xam ne mooy Inter Miami éliminé nañ ko ci pole eh, play off boo xam ni ma ngay nekk fële ca eh, États-Unis d'Amérique loole nag di lu njëkk daanaka ci Lionel André Messi donte dem na fa waaye nag du mën a continuer li nga xam ni moo des ci boobee tournoi wala boobee programme ndax fi mu toll nii ab équipe am buñ ko éliminé amatul lu muy football dana toog ñeenti weer séngam yoo xam ni équipe am du football ndax dañ koo éliminé loole nag ñu mën cee jàngate ni moom mii di Lionel André xam na bal tàmm bal Inter Miami bu ko neexee mën na koo able équipe bu ko neex mën na koo prêter mën na koo jaay mën na lu ne kon Messi fi mu toll nii li ci gën a taxaw position Barcelone daanaka ña fay xaar bu baax a baax ak yeneen équipe yi euh, la di Manchester United wala Manchester euh, City loolee ma ngay am te stade Arsenal match ba ci Canal Plus lay daw à partir de 15h25 euh, ci canal. maanaam 15 heures 30 bu jotee match boobee moom lay daw match ba nag di soog boo xam ni daanaka ñoom ñaari ñooñu kenn ku ci ne yaa ngi dàq Pape Matar a Papito akub équipe am euh, pour mën a jël njobbaxtalu classement bi City nag bu dóoree day double kii di Pape Matar Sarr Papito ci benn poñ boo xam ne dana ko am gaa yeneen information revue de presse lay doon ci kanam.